ñaari soxla amuñ ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp rek ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi ñaan mbokk yi mbokk yi ñu dal ñu eh, ci yonentam bi bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di wax mbokk yi tey yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, bala ñoo bala ñoo jottali kàddu gi euh, madame la ministre soxna Fatou Diané euh, mbooloo mi ak sëñ Maxtaar ci boppam daa am lu mu ñaan su ma noppee ci kàddu gi doomam jii di sëñ euh, euh, Basiiru Xaadim Awa mu am ay liggéey ak taxawaay yu am solo yu muy def ci daara ji muy ko am kóllëre mu jokk kóllëre gi bàyyam amoon ak sëñ Mat Saxir amoon kook sëñ Maxtaar mu am ay ndimbal ay sek yoo xam ne ni yuñ ko jox la yum laaj mu joxe ko ci sa kanam ci gàtt bu néew nga doog a dem ci sëñ bi mu defal la ñaan waaye suñ noppee tamit dañu ñaan mbooloo mi ñu toog ndax wax ji day continuer ba tisbaar di jot gannaaw ba ñëwee ñi fi nekk ñu fi teew ñépp ci turu sëñ Maxtaar di jiital ci nuyoo bi nag euh, monsieur Macky Sall président de la république di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci daara ji waaye taxawaayam tamit ci daara yi ndax yaakaar naa ne li mu mëbët ko su fekkee ne am na dana bari ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne nii danañ ko teggil daara ndax su fekkee ne dafa jël ci alal jin daan nattal ministre bi yore wàllum njàngale mi mu jël ci six milliards jagleel ko daara yi am ca loo xam ne ni lépp dañ koy jënde ab dund am ca loo xam ne ni lépp dañ koy dollawaat ci daara yi loolu dama ne moo ko fi jëkk a def kon loolu ña ngi koy sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla di nuyu tamit bëgg nga jottali nu Maxtaar ay nuyoom ci premier ministre monsieur Amadou Ba ci taxawaayam ci daara ji ak jëfam ci daara ji moom daa jàppe sëñ Maxtaar waajur waajur la ko jàppe jamono ju nekkit ci ku luñ yëg ak ku yëg ak ku yëgul lépp lu man mu ngi loxaam mu ngi koy dugal ci daara ji te loolu ndégul bañ def ko premier ministre rek mu doog koo def naka ni si daaw ndajem daaw mi téeméeri nag la jagleloon daara ji nag xale yi nañ tàmbali fukki fan balaa ndaje mee ñëw ñu leen di bëggal di ak ak ceeb ak diw nañ bëggal xale yi balaa ndaje mee ñëw ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñu ngi sàkku ci soxna si mu jottali suy nuyoo ci président ak Amadou Ba bi mooy PM ak mboolem membre du gouvernement bi rawatina ak nag Cheikh Omar Anne ci taxawaayam ak ci jëfam ndax ñëw na fii ñuy war a ubbi lycée bu bees bi mu ñëw ci daara ji visite daara ji yëpp fépp mu dem fi nu ay xalaat ak ay orientation yoo xam ne nii luy jëriñ daara ji rek la waaye jël ay engagement tamit ci ne daara ji éducation national un million la ko daan jox mu ne ko dana ko jox quarante millions di noon dana dana ko jagle ci bitsi bi quarante quarante millions kon nag loolu fokk ñu soo teewee dafa na ni gouvernement bépp teew nañ kon danañ la ko jottali wax la ko di nuyu tamit mboolem délégation bi nga àndal ñëpp rawatina nag soxna si baax si madame le gouverneur ñu di la seedeel taxawaayam ci daara ji taxawaay bu rafet la taxawaay bu mucc ayib la lépp lu am lu man ci wàllu man-man ngi koy yëkkati di ko dimbale daara ji waaye bépp xalaat bu mu am tamit ma ngi koy def ngir dimbali daara ji ñu di la xamal ne madame le gouverneur santal mboolem chef de service yin soqal yin bokkoon séqal CRD boobu ñu doon def ñoom ñëpp kenn ku nekk la nga waxoon def nga ba def lu ko raw jërul tudd ndax soo limee ak waxtu bi dafay guddi waaye nga xam ne chef de service yëpp def na li ñu war a def benn desul di nuyu tamit musele le préfet ak sous préfet bu kokki ci taxawaay moom it di ko rafetlu ak monsieur le maire ak chef de bi ak mboolem kilifa yi fi nekk ah, daaray kokki nag daara la joo xam ne sëñ Mat Saxiir moo ko sosoon 1939 ci ndigalal sëriñam kilifaam maam Cheikh Mbay mu ne ko demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla loolu moo tax daara ji amuñ sañ-sañ ci fayeku te sëñ Mat Saxiir daan wax ne su fekkoon ne daara ji day d'accord naa ci ci daara juy fayeku waaye nag su fekkoon na ñëpp dañ doon fayeku doomi ñi amul fan la ñuy jànge te jàng nag ñëpp a ci am àq ñëpp a ci ñëpp a ci am àq loolu moo tax nun amuñu sañ-sañ ci fayeku loolu tamit sëñ ma saxir 1939 bi mu fi nekkee bi mu ñëwee kokki tamit suñu mbokk yu baax yi muy njabootug maam Maxtaar Numbe ñoo ko dalal jox ko fu dëkk jox ko ay tool jox ko seen njaboot di ko jàppale biir ak biti muy baay ma debbo jamono jooju ànd ak rakkam bàyyi sëriñ ak ak maama yal na yàlla yal na yàlla yërëm leen ñoom ñépp loolu dañul soxna si loolu dañul ba jamono ñuy toll suñu kilifa ñun ñëpp muy sëñ xabbaan te suñ ko nuyoo nuyu nañ kilifay diine yi ci tund bi yëpp di rafetlu moom it di lu taxawaayam di ko ñaanal yàlla mu gudd fan te ànd ko tam jotti lu tamit suñuy sant ak suñuy gërëm ci waa kokki nun mënuñoo fay waa kokki nun ñi ñëpp taxaw waa kokki ñooñu doon dundal ñooñu yoroon ñooñu doon tette ñooñu doon muñal bañ agsi fi ñu agsi ñun ñëpp bari na ci mbooloo mi toog ay docteur a ci ay commerçant ngi ci ay ñu am ay doctorat ay ku nekk ngi ci ñoom ñëpp seen njëlal bàyyi yor leen woon waaye njëlal waa kokki moo leen yoroon kon ñooñu amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla waa kokki la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka waa Madina dimbale woon ba am pay gañ am suñ borom suñ borom yal na nga wàccee daraja joojee yal na nga jox kokki ak lu ko wër ku dëkk kokki ak lu ko wër sant nañ leen gërëm nañ leen te ba léegi soxna si tey lañ gën a futteeku di def seen alal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñoom ñoo jëkk a formé ab na yàlla yàlla yërëmal ko muy soxna Adja Soda Wade di dajale ay million di indi bi mu tamit njabootam ci jiital soxna Rama Ndiaye ànd koog waa kokki ak i mbokkam ba biig lañ ko mujj andiwaat kon waa kokki dama ne suñu reyoon suñu bopp leen mënuñ leen a fay waaye nag yàlla am na fay yàlla leen fay gën di fay di fàttali tamit te jotaay buñ taxaw war nañ koo fàttali ndax sëñ ma saxir waa kokki bàyyi wuñ ko waaye daa amoon ñu baax ñoo xam dañ ko sësoon jàppali ko di ko dimbali def seen alal def lépp luñ mën ci njiital suñu bàyyi alaaji aatu xulle nga xam ne àggoon na ci daara ji foo xam ne dana woon sëñ ma saxir soo ne ma woon bàyyil li ngay def duma ko ba ndax deful ma lu sama bopp laay defal yàlla na ko yàlla fayal ànd ak suñu bàyyi allah ji Bakari Gueye allah ji Matawas Diop ca ca Kébémer allah ji Momadou Saddi ca Kébémer bàyyi allah ji Ba Sill ca Louga ba bàyyi nañ ko waxati allah ji Modou Jaxate ca Ndande Cheikh allah ji Cheikh Diop ca Thiel Maxamba Kol Balla Lo ca Kaolack sama yaay. sama yaay soxna Fatou Fall jaga asan ci kokki ant kook nag fekk nag am na ku leen ci jiit sax nag muy bàyyi Tamsir Diouf mi nga xam ne nii moo doon wëlalaw sëñ ma sax it te dëkk Bargny dëkk fii andi dong bu jëkk Kafeer ant kook waa Bargny gépp ba léegi seen njaboot njaboot li lu mu mën ci doon jamono ji nekk waa Bargny ñu ngi dugal seen loxo di jëf yal na leen yàlla fayal te lépp mu ngi jaar ci bàyyi Tamsir ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii wax ko ci waxtu wi du fi xaj rawaate naa nag suñu bàyyi Alaaji Bakari Géey moo fekkoon daara ji mu nekk ay sàkket ay néegi ñax yu rab mu ñëw tabax daara ji def ko ay étage karale ko andi ci ndox and andi ndox andi groupe boo xam ne bii gannaaw bañ daan taxani daan taal soxna jaane ku la wax ab taalu jàng danga ko xam ndax yow sa kër maam daara la jaane moom daara ci moom la fekk baax ci moom la yem te li ma la wax xam nga ko bu baax ku xam tamit daara ci cosaanu réew mi kenn mënu koo tudd te tuddoo ci famille jaane mu ñëw nun dindi loolu tabaxal nu ay taax yoo xam ne nii nun amuñ ko suñu kër ndey amuñ ko suñu këri baay andil nu groupe muy taal di ñu niital ñuy jàng di ci niitu mu andil nu ndox këccal nu ndox dañ daan roote di yenn mu teggil nu ko yal na nu ko yàlla fayal la yonent la la yonent bi waxaloon Seydina Ousmane amuñu sañ-sañ ci wax ko waaye nag mën nañ koo ñaan yàlla ko defal alaaj bakar yi ak ku mel ne moom mu ne maa darra Ousmane maa faala baadal yawm bis nag tey Seydina Ousmane amul lu muy mën a defet lu lu ko tee dugg àjjana loolu tamit yàlla dal alaaj bakar yi ak ñam bokkoon seqal ñëpp alaaji ma xari moomu bi mu demee tamit dañ ciy sant yàlla alaaji baare mbub ci la bokk dama ko fàttee tudd dégg nga alaaji sëñ morloo ca caare yi ca la bokk alaaji daam sekk ca ca ca Dakar dëkk cëkkeen sam-sam ca la bokk ñoo ñëpp ci lañ bokk waaye bi mu demee tamit yàlla baaxee na ay doomi daara ji ñoo taxaw lépp luñ mën di ko def ci daara ji te loolu kenn jiituwu ci sëriñ bu ba léegi xale yi lépp lu ñuy njëkkee ci Cheikh Lo Diop bii lañ koy jële par weer dëkkul ak yeneen dimbal ak it suñu mbokk mu baax mi Alaaji Abdou Aziz Sylla bëggul koo tudd day jëf te du wax du feeñ fen waaye su jëfee rek ku romb rek xam ne fii gayndee fi jaar te madame la ministre mu ñu waxal la ne ndox bii nga xam ne suñu mbokk suñu xarit yal na ko yàlla fayal muy Alaaji Alaaji Alioune Souané moo ko ta moo ko gasal daara ji ab forage daara ji di ci naan am ci lu bokk ci ab xaaj ci bi di ci naan dëkk yi wër tamit dëkk yi bari di ci naan dañoo dem ba yàgg forage boobu néew doole ndax ñi ci xëcc dañoo bari ñu ne ñu ne sëñ Maxtaar teeñ koo dellowaat yëmale ko ci daara ji mu ne on lu am nun ñoo waa kokki ak li wër kokki ñoo koy bokk nañ continuer nam daan joxe yàlla di dikkan mbiram alaaji Abdou Aziz moo dikk gas fi beneen forage fecca ndal la ba yàlla defee ba ndox mi génn muy ndox mu nekk sax faf léegi xan liñ ci fas yéene fas nañ cee bay xale yi li ñuy jëfandikoo ci ay légumes yëpp nga xam ne nii suñ tiimatee añ wala ñu tiim reer di reer wala ndekki di ndékki danañ xam ne lii seenu ñàkk ñoo ko ci def ñu jàngale ci liggéey teg te Abdou moom du man du sëñ bi du doomam du soxnaam du mbokkam du kan ku xam ñaata la ci def jomb na ko kenn xamul ñaata la ci def ñaari sett doon na ko defal benn ca ndàll benn fii kenn xamul waxul kenn ne lii laa ci def kon Abdou Aziz moom it ëllëg moom ak mel ne moom ëllëg la nga xam ne nii moom la yàlla di fayee saxaaba ya di leen faye yal na ko ko yàlla faye yemuñ ca loola am tamit ci njaboot gi ñi leen jóg alaaji at law mii gis nga gis nga résidence bi moo ko tabax tabaxaat na beneen fële démb démb la jox caab barki démb la jox caab ji sëñ bi te ko maa ngi negaat foo rëddaat rek maa ngi ne nga rëddaat maa ngi ne nga joxañaan ma foo ma mu rek ma dem foo mu joxoñ ba gëm naa la xamal leen yorul alal ji de waaye nag am na pit bi yaakaar na yàlla doyloo na yàlla madame la ministre da ngaa ci sa kër li fi dox lépp da nga ko war a fi nekk muy moom noonu mu amee jamonoy feebar bi bi feebar bi amee dëkk bi am lu leen metti lool ndax xale yi ku daan añu ji ci kër dematoo ku daan reere ci kër dematoo ñëpp ñu toog ci daara ji biñ toogee ci daara ji sëñ bi ne leen dañ toog te jàpp ci yàlla ñu toog xalaat waaw xale yi suñ demul fenn kenn añuwul fenn kenn réerwul fenn dépense bi lan lay war a ci ñaar fukki fan yéen jëkk jàpp ma juumee oustaz wala baay mu ngeen gàkkante ma ñaata lañ jëkk a joxe ñaata lañ joxe woon ah 42 millions ñu ne léegi loolu ñaar fukki fan yooyu 42 millions moo yor xale yi Abdou Aziz daal may woo téléphone na ma li ngeen doon wax fan ngeen ci tol ma ne ko 42 millions day lañ wax moo yor xale yi ñeent fukki fan mu ne def naa genn ñu doon bi may waxee bi ma daataan àggal mu waat na téléphone ne ma def naa lépp ci jamono jooju nag biñ jàllee loolu te xale yi kenn demul fenn ci la sëñ bi ne waaye nañ jéem nañ jéem li nga mën a taxawal loo xam ne nii xale yi danañ ci mën a jëfandikoo ndax sëñ mat saxiir suñ xale bi jëkk am bourse ba dem jàngi université islamique bu Médine bañ ñëwee vacances danañ na laaj na leen nan ngeen di añee ak nan ngeen di reere ak nan ngeen di ndékkee ñu ne ko dafa am foofu dal lu ñu naan ab restaurant restaurant booba nag su añ jotee dañ naan heure sàngam lay ubbi ba heure sàngam reer noonu ndékki noonu mu ne xanaa loolu da ku ko amoon dana baax ñu ne loolu xalaat boobu sëñ na taxir amoon ci defar restaurant boobu nañ ci dugg yàlla rek fi nekk bañ amee xalaat bi am suñ doom ju baax muy doomi sëñ Mor Lo di suñu mag di suñu lépp muy doomam ju naan daam ñu wax koko mu ne ah man de mën naa leen a defaral plan bi ndax am naa sama benn xarit boo xam ne bii ab architecte la sëñ Maxtaar na ko na ko defar mu defar plan dikk bi mu defaree plan bi ba dikk sëñ Maxtaar ne ko luñ ci luñ la ci luñ lu mu ci laaj mu ne ko luñ ci wef maa koy def maay fay plan bi mu yëm yëmul ca loola mu ne waat sëñ Maxtaar maa ngi lay waatal ci yàlla ne lépp loo xam ne nii même defar la maa koy joxe muy maçonnerie muy carrelage muy peinture muy électricité muy lépp yow nag loo am ci ciment ak ku ci dimbali na la ci dimbali restaurant booba tey yaakaar naa ne ñu ngi ci ay finition karala nañ ba pare te dañoo bëgg xale yi nekk ci condition boo xam ne bii ay condition yoo xam ne nii yi yu mucc ayib lay doon ñu nekk université nekk feneen nekk feneen nañuy jëfandikoo noonu ñuy jëfandikoo noonu kon suñ doom jooju daamit ñu ngi koy sant di sant njabootu sëñ Mor gépp goo xam ne gii su daara ji waxee rek pare nañ ko joxe seen bakkan yan nañ leen yàlla fayal ñoom ñëpp fàtte wuñ suñ doom it fàll buur mi nga xam na nii moom it gaynde la ci ndax baas bii nga gis nii Omar Sow moo ko daan tax moo ko daan te kenn musu ko yëg yal na yàlla yërëm ko waaye bi mu demee da ren njabootu sëñ loolu ñoo takku ne suñ ñoon nekku ci lool ak yu ñuy naaj ñuy taw danañ ko defar ñoom ñoo ko fay te liñ ci fay ci ay millions kenn xamul nan la tol kon yal na leen yàlla feer delluwaat tamit di nuyu mboolem ñi fi teew di beral ci nuyoo nag suñ mbokk yi jógee Gàmbi Alaaji Ali Mbay ma ngi fi ànd ak ñoom di rafetlu seen taxawaay di nuyu tamit ñu jóge Mali Ibrahima Ka léegi wax na fi ak ñu jóge Guinée Conakry ak Guinée Bissau ak ñi nga xam dañoo jóge ak ñu jóge ci senegal yépp nag moo xam Tamba la moo xam Njambur la moo xam Saalum la moo xam Bawal la moo xam Kajoor la moo xam Kafeer la moo xam fu moo xam Waalo gox yépp ñëw nañ sëñ bi nee na gis na leen sant na leen gërëm na leen yal na yàlla dole leen te teraanga ji yal na gën a sax di nuyu tamit kilifay diine yépp di ci jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa délégation ñëw na ak kilifay diine yi ci réew mi yépp wàcce na ba suñ mag Cheikh Ibrahima Seck ma nga nele nga xam suñ paree moom mooy mujj mooy def ñaan di nuyu ñëpp bay wuñu kenn kuñ tudd ak kuñ tuddul yàlla moom xam na di nuyu tamit mboolem mbootaayi lislaam yi fi teew association yëpp rek yi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di jagleel nuyoo nag te moo waroon jëkk moo war a mujj suñ mbokki sëñ daara yi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen waxal ne leen ne yokku leen a góorgóorlu ak yokk taxaw sëñ ma sagi daana wax ne daara xiif du ko tas mar du ko tas rafle du ko tas tumuranke du ko tas feebar du ko tas ñu ngi xeex daara du ko tas ñàkk jàng rek mooy li mën a tas daara kon nag lool la ñuy suñ soññ suñ bopp di liñ ak lu mënti am nañ yaakaar yàlla ak lu mënti am nañ doyloo yàlla ak lu mënti am nañ wéeru ci yàlla ndax moom rek mooy ndimbal moom rek mooy ndimbal ndax at bu nekk wax leen ko sëñ ma saxiir day dimanche ca yor yor sëñ Maxtaar mi am na yaay yaay yaay koo xam la ci sëñ ma saxir génn àddina ñu toog dimanche boobu dimanche mu xaw a tabde day am ndax gan sëñ Maxtaar ne ko ma ngi bëgg naaj de mu ne ko ci lan fekk man yebaloon na mu dem non da ngay jiitu ci mu ne ko ci lan mu ne ko ndax ma ngi bëgg a naaj ndax dëj ba mu ne ko loolu taxu ñu foo di jàng ak jàngale moo ñu fi taxoon a tëkk suñ dañuy nekk ba mën ko rek dog def ñu toogaat ba yàgg ci même jotaay bi sëñ Maxtaar nga nee di ma dégg ne man de am naa njàqare ak tiitaange ndax kër gi li fi nekk lépp mëtul mëtul ñetti bërigoy ceeb ña a ah, sax ñetti saakoy ceeb a fi des sëñ ma sax yi ne ko ana yàlla ama ah, sax yi day du jàq du tiit ndax wóor na yàlla dina ko dimbali wóor na yàlla dina ko dimbali muy dimanche ca guddi mu daanu feebar altine talaata àllarba ca suba ñetti oto ñëw fi bii trente yi ceeb bii trente tonnes yi def diw bii quinze tonnes yi def meew quinze tonnes yoo xam ne nii yàpp bi nga supp bi ngay tàngal ndox rek def ci la andi ne daara jee ko andi fu mu ñu ne ambassade bu Italie moo ko joxe te demuñu fa waxuñ leen indi ñu yóon na oto yooyu benn diggante Louga ak fii tase nañoo koor bi muy ñëw nga xam ne keroog lañ ko taftal lañ ko taftal te loola ci lañ ko jël keroog bañ tollee ci sang di ko sang di ko defar la ambassade bi yebal ñaari ñaari ñaari ñaari nit délégué leen ñëw man nii la leen sëñ Baxtaar booleel ma dugg wan leen magasin yi wan leen lépp ne leen liggéey yu mën lépp ñëw na de waaye nag ki jiite woon liggéey bi day moo génn àddina moom lañu waajal nii ñu ne ma qu'importe ñun dañ doon joxe ndimbal rek sëñ Makhtar ñu nee na booba la noppee jàq booba la noppee tiit amatul lu muy jàq amatul muy tiit ba fii ñu toll nii xale yi añ jotul ñu ñàkk añ réer ñu ñàkk réer ndékki jotul ñàkk ndékki te lépp ndimbalal yàlla moo tax doyloo yàlla rek wóor suñu mag alaaji Lamine loo mu baax ma keroog ba fi sëñ ma saxit jógee ca ay bis mu ànd ak alaaji jii li ñu jaale si dafa am lu mu wax sëñ Maxtaar te sëñ Maxtaar nee na nit musuma wax lu mel noonu te góomu ni nit dana ma ko ma sa waxati mboog alaaji ji li ñoo bokk oto bi mu demee ba ba alaaji li dugg daa des gannaaw xëcc diis jàpp lu mbubb sëñ Maxtaar mi ñodd ko mu topp ko mu ne wax ji bari na coow ji bari coow li bari na waaye kasa bàyyi sukkandiku woon kam wéer woon mu yàlla wéeru waaye bu wéeru ci nit de ndax day am ba yàgg dutu am wala mu wala mu am ba yàgg mu mu mu mu faatu wala ñàkku ko sax waaye joxatu la ko moo tax alaaji aas lii nga taxawal gannaaw bañ la santee gërëm la ci li ngay def lépp te xooloo ko bëggoo dara ma di la waxal ne la milliard bi ngay wax ci ci wa jaay tuubi doyul ndax restaurant bee ñu taxawal fi mu toll nii li ca demagul mat ne deux milliards te dañoo yaakaar ne un million dana ko un milliard dana ko defar te daara ci moom li mu la yem ci boppam waaye daa bëgg a yor daara yépp loolu moo doon nëbbut sëñ ma saxiir moo tax wa jaay duugi ah nga la gaañu def leen ci seen alal def leen ci seen alal man de loolu moo moo gën a dal sama fit man ñi ko wax de man day def naa ci sama alal waaye yomal xiyaam jot ñu ne lañ doon taxawal ngir daaray kokki yow ndax dam koo déggu noonu ak loo ci def ak foo ci toll ah dañ ci def suñ alal nañ ci def suñ alal ña ngi del nuyu jabootu jabaatu Abdou Abdourahmane yëpp di delluwaat di wax nag sama bopp sama bopp laay wax ak njaboot gi nga xam ne gi ñoo yore de taxawaay jot de te nag sëñ Maxtaar mais moom wàcc na ak lim mënoon ma koy def ñun moo ñu mag ba mën ñoo jur jërëjëf moo nu mag ba mën nu jur te moo nuy mujj a tëdd mu jëkk a jóg ba bi sëñ ma taxit jógee ba léegi xottiwul mbub sa mbokk soxna Faati Jaane sa mbokk soxna Yaasin mu ngi ci mbooloo bi na sëñ Maxtaar mi mbub muy mbasee mu ñaw ko ba mel na ma na mbar a mel te toujours ci teraanga yooyu ci la dëkk sëñ Maxtaar bañ ko ko joxee ne ko yaati na ko jox mu ne ce rafet na baax na de waaye ak a neexoon mu doon ab ci a def ko ci daara ji waaw moom ma nga ne joxe na bakkanam joxe na njabootam joxe na ruwaam joxe na lépp kon nag nan war a def nan lañ war a def lañ war a def dama ne yéen xale yéen lay wax taxaw leen taxaw leen taxaw leen lii ndono la loo xam ne nii mu nee su la am ko gën mu nee su la am ko gën a baax te li ma la wàcceel billaahi wallaahi tallaahi laa wax nag képp ku ci taxaw te def li nga war a def te nekk ni nga war a nekk wax ba la doo am na wër ta am de waaye loo war a am daan la yomb ku ci taxawul nag wan ko gannaaw nag wala adduna tax laa jóg wala dara ci tax laa jóg wala dara tax laa jóg yaa xam man fàll man de li may waat ci yàlla ne mooy ne su fekkee ne alal la yoo xam su na ko amee dana tax ba doy di liggéey bi wala muy njaboot wala muy liberté ci àddina yàlla naa ko ñàkk su laajee sama bakkan sax sama bakkan na dem nañ góorgóorlu sëñ Mat Saxiir wàcc na sëñ Mat Saxiir wàcc na sëñ Mat Saxiir wàcc na sëñ Mat Saxiir wàcc ñoo ci def waaw su fekkee na ab bëri ko la boo war a bërën ñu bërënal la ko ba tegal la ko ci tund bi la àggaleel dañ laa wax teg ci sa loxo rek waaye doo ci tus dañ laa teg waaye doo ci tus am rek kooku liggéeyoon moom dem na kenn ci ñun du dara kenn bu kenn ci ñun door dënnam bu kenn naan man nangam doo ci tus man duma ci tus keneen du ci tus li ñu war daal mooy taxaw suñ taxawee daal te nekk dañ war nekk lépp dana am kon sëñ Masakir ay gis-gisam ak xalaatam ëppoon na fi ñu toll fi ñu toll la ñëpp di ko naw ak di ko yëngu waaye xalaatam ak bëgg-bëggam ëppoon na foofu kon nag ña ngi delluwaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tamit suñu dellu ci jàmm yàlla aar daara yàlla yàlla aar daara yàlla yàlla aar ñoñ daara yàlla yàlla gën a dimbali daara yàlla yàlla gën a taxawal daara yàlla yàlla gën a kañ daara ba mu jëm ca kanam résultat yi daara di am. yal na daa résultat yooyu gën a yokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp rek ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daar yi nañ jàpp ci daar yi rawaat nag doomi daar yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk Daarakoki TV la chaîne au service di Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim